أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا قول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen baalu di ñaan yàlla yàlla na defal jàmm defal ñu wér ak tal ak fekke njëriñ suñuy njëriñ ak suñu njëriñ njaboot ak njëriñu mboole mbokki jullit bu ko defee nattu yooyu yàlla def mu ne wàññeentu alal wàññeentu meññeent wàññeentu bakkan la ñuy nattoo kon bu fekkee épidémie ñëw na ah loolu kon dañuy xam ne kon suñ fàgguteef googu la ñu yàlla nattoo noonu su ko defee nag lu jëm ci wàllu jaamu yàlla goog ngir sellal ko dafa bokk ci jullit mu fonk farataam fonk léegi laab bala muy def farata ja ko defee julli juma daje di zikkar turu yàlla daje dégg nga maam di waxtaan ci wàllu yàlla loolu malaaka ya fay wàcc ak leer ya ñuy wàcce dégg nga ak yiw wacce yàlla di indi war na mën a fekk jaam bi ba nga xam ne balaa ba du fa mën a évoluer natt ba du fa mën a évoluer ndax yàlla moo ko wax wa basiri saabirin na nga bégal ñi nga xam ne dañu muñ ndax muñ mooy nga delloo yàlla cëram sax ci jaamu ko muñ coono yaag xat-xat ya ba taxaw ci jaamu ko joxe farata ya ba mu mat sëkk kon man daal li ma gëm mooy ku def loolu yàlla mën na la musal ndaje yi nag buñ ko buñ ko waxee xëy na mën na am bu fekkee ne jàngoro ji àggoon na foo xam ne ëpp na ay loxo te fi mu nekk nii mën nañ wax ne fi mu jaareegun doon doonte mooy yoonu jaww ji avion yeeg yooyu xëy na du ñàkk ñu potoxlu ci frontières yi nga xam dañu tere ñu jaar ci beneen réew dox ñëw wala jaar ci oto ñëw waaye loolu yëpp mën naa wax ni ñiy julli juma comme ñu ngi ànd ak laab ànd ak tuuru yàlla yi ak ñaan ya ñuy ñaan wax dëgg yàlla war nañu mën a sax daje ñaanal réew mi bu ñu bu ñu ñàkk ñaan yi te ndaje mbooloo bu ñaan faw yàlla nangu ko bu ñaanee mucc ci jàngoro jooju daje jumaa julli fa mucc ci ñaan mucc ci jàngoro ji faw yàlla musal ñu ci jàngoro ji kon dama gis ne rek ñàkk julli jumaa perte la ci jullit yi ndax ñàkk nañu farata ba ñàkk ñaan ga man loolu laa gisee rek waaye nag jàngoro ja rek mën na yegg foo xam ne mën nañ ko ajandi waaye ñàkk ko aj fi ñu toll nii nii nii moom laa gis bu ko defee ñaan yàlla daje ñaan yàlla def ay dog surtout laa xaw la wala xuwata boobu ña ca jumaa ja kenn ku nekk def ko téeméeri yoon du ñàkku ci yàlla nangul bu ko defee loolu daal man loolu laa gëmagul bu ko defee da kenn waaw bu ko defee ba ba ñuy gis leneen loo xam ne rek dina tax ñu mën ca sukkandiku ne jàngooro ji daal nii lañ ko war a fegee ndax yonent saa salaam dafa waxoon ne dëkk bu mu am bu fa kenn dugg bu fa kenn génn moom balaa mooy épidémie kon loolu lañ waroon njëkkee yone saa salaam bu ñu du mooyoo ay waxam mooy dañuy am problème rek ñàkk déglu ay waxam moo tax ñu teel a dañu waroon teel a tëj frontières yi teel a tëj kii euh, maanaam euh, voie aérienne yi ndax foofu lañu ñu bu buñ ko teeloon tëj loolu du am bu ko defee loolu ñu jàpp ne yoneen saa salaam wax na ko kon na na siiw ñëpp xam ko ne fu mu am bu fa kenn dugg foo xam ne euh, kenn koo xam ne nekkuloo fa bu fa dem bu fa dem bu fa dugg ña fa nekk itam bu ñu génn ñu génnul kon du ñu tasaare jàngoro ji bu ko defee loolu la ñu dem rek ñëpp soto daal di faj réew yëpp daje faj ña am jàngoro ca réew mooma buñ ko teeloon def mën na am yëf yi du agsi fii waaye seetaan ak ak bay-bayal ak ay procédure yoo xam ne kenn xamut lu ne këtt ne jon da nga naan ne këtt ne jon rek waaye boo xaaree di bay-bayal ba mu ëppi loxo noonu la ñuy def ci guerre yi duñ ko teel a faj ba mu ëppi loxo ñuy door a jóg fekk dañuy xaw a seetaan ba ñu faagaagal ñeen ña ca des xaw dañoo bëgg nit ñi dee ñu dese suuf si xaw ma ah ña ca kaw yëlif nit ñi xaw ma lu mu demee noonu waaye daal rafetut ñuy see nit di seetaan mbokku nitam. muy feebar feebar bay wàllante di dem te teeluñ caa jóg faj ko ku nekk defee tuuti ñu boole ko day daal di mën a faju ngeen baal ñoq